Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'en vais vous faire lecture du communiqué numéro 109 de ce jeudi 18 juin 2020. La lecture de ce communiqué sera de deux communications. Celle de Monsieur le ministre Mamadou Tala, ministre de l'Éducation nationale,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 106 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,53%. Les cas positifs sont ainsi répartis. 93 cas contacts suivis par nos services, 13 cas de la transmission communautaire répartis entre Touba 4, Rufisque 2, Mbao 1 Guédiawaye 1 Liberté 6 1 Grand Yoff 1 Yaraax 1 Cambérène 1 et enfin Kaolack 1 110 patients hospitalisés ont été ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 17 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Trois nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures de santé ce mercredi 17 juin 2020. À ce jour, 5475 cas ont été déclarés positifs, dont 3716 guéris, 76 décédés et donc 1682 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect des mesures de prévention individuelle et collective. ci wolof tey bésu jeudi 18 juin 2020 ministère de la Santé de l'Action sociale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 dina ci topp pour def communication bi maa ngi leen di sant di leen gërëm ci jox kàddu gi monsieur le ministre